salaamaleykum Afrika. xibaar 24 seen jotaayu xibaar 24 sur seen télévision si post ngeen di am ay xibaar si anam yi mu gën a wóore gën leer gën a gaaw di leen di gunge si biir médias sociaux yi panel yi page yi groupe yi Facebook Twitter chaîne YouTube xibaar 24 TV. li ma wax daal mooy situation bu Sénégal situation bu compliqué la guddi yi ñu toll nii. ndax euh, ñu ngi jëm ci élection boo xam ne mën naa ni guddi gu bët sotagul la ndax euh, comme niñ ko xamee Karim nekkul Sénégal maanaam tëj nañ ko biñ ko tëjee ba pare génne ko exilé ko génne ko réew mi euh, Khalifa Sall mi nga xam ne nii mooy maire de Dakar nga xam ni moom dafa taxawoon pour samp ndëndëm moom it mi ngi ci kaso bi Idrissa Seck bon mi ngi jóg ak di daanu amoon na départ bu baax far mu def erreur yu bari de communication yoo xam ne jàpp naa ne am na lu mu ko yàqal bon Sonko ñooñu ñu ngi soog a jóg ay Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ak ñooñu moom vraiment ñu ngi soog a jóg te Sénégal nag ku amul appareil moom mënoo gagné muy élection bu doy waat parce que nag dañoo jëm ci élection boo xam ni nii président bi koy gagné mooy président bi njëkk a gérer pétrole Sénégal te réew bu fa pétrole amee rek. day daal di doon beneen réew maanaam lépp day gën a compliqué moo tax élection bi di ñëw dafa war a doon élection boo xam ne dafay jeex ci jàmm parce que bu jeexul ci jàmm rek façon problème bu nekk mën naa am te problème bu ndaw bu amee rek ñi bëgg a siif pétrole bi mën nañ cee buruxlu pour dugg siif pétrole bi maanaam indi fi situation boo xam ne guerre lay doon wala dara pour mën a siif pétrole bi wala gaz bi donc situation bu bu bu compliqué la bon Karim moom. Euh, nekkul électeur sax bay bay nekk éligible cest à diir boo xoolee tey li tax inscrire nañ ko ci loi électorale bi lenn rek la pour mu mën a mën a présenter wu ci élection bi ndax nag euh, réforme constitutionnelle bi ñu defoon daal ni pour nga nekk pour ñu mën laa élire faaw nga nga nekk électeur liñ ci jublu woon mooy écarter Karim Wade ak Khalifa Sall ndax ñoom ñaar ñëpp dañ leen condamné lu ëpp cinq ans te code électoral daf ni ku ñu condamné lu ëpp cinq ans mënatoo doon électeur boo mënul fal nag mënoo mënoo falu donc loolu foofu foofu la foofu la foofu la foofu la débat bi toll ci guddi ñu toll nii léegi nag euh, PDS moom euh, euh, maa ngi dégg ñu naan amuñu plan B mais c'est faux que moment bi may wax ak ni am na ministre boo xam ni ministre Ablaye Wade la woon boo xam ni paa bi nee na ko préparé wul ba mi ngi préparé wu mi ngi def yu bari pour préparer candidature am donc PDS amul candidat moom. ku amul ku amul information moo koy wax li ma jàpp nag man mooy euh, Karim Wade dafa war a ñibbisi si Sénégal ndax aussi bu naree toog ci àll bi ay mandat d'arrêt wër ko mënul dem fenn loolu ñëw Sénégal ñu tëj ko sax moo ko gën te xam naa ni moom bu ñëwoon Sénégal buñ ko tëjee moment bi ñu toll moom Sénégal du àttan loolu parce que parce que Khalifa Sall mënul nekk kaso moom mu nekk kaso jàmm di am élection war a am donc voilà Euh, cela dit nag li ci des moom ci candidature yi la ak kii bon mais daal situation bi daal bu ngeen bëggee dégg-dégg situation bu compliqué la maanaam mosu ñoo jëm élection yoo xam ni compliqué na comme élection yi nga xam ne moom lañ jëm loolu mooy sama jàngat bu njëkk. xibaar 24 seen jotaayu xibaar 24 sur 24 seen télévision si poste ngeen di am ay xibaar si anam yi mu gën a wóore gën a leer gën a gaaw di leen di gunge si biir médias sociaux yi panel yi page Facebook Twitter chaîne YouTube xibaar TV